naa la woo même dama nekk sama sànq bi nii après naa la woo waaw wuli wuli looy def nii ah? xaay ba ngeen ma dem kenn kàggee tëj wax man di ma yuux xaay ba di ma pop pop pop kaka yi jeex na peinture bi jeex na lii jeex na dara amul tëdd yi nelaw. wuute xaaral xanaa xamoo siwo bati. siwo siwo bati. siwo bati moom mooy ñan. waaw am nga internet. Mm, bu baax ci laay dox waaw nañ dugg siwo bati point com ñu commande. lépp loo soxla. ci wàllum tabax. même ba ci fer sax dañ la koy jaay. Ah. peinture dañ la koy jaay. jeex na dina jaay carreau chaise anglaise lépp lu jëm ci toilette ak cuisine borom bëri ñoom dañ la koy jaay. Mm, kenn du ñoom seen numéro téléphone père. 78 457 96 92. waaw soo bati mais loolu jarul xulóo yow tamit nag. déggul ma wax looy joxe sa xaalis xaalis. ay lay ay ay ay lay damay leen nag nelaw amatul ak soobati nelaw dootu fi am xam nga nag santay santal soobati bu baax a baax bu doon nag soobati nag bati naa la bu yàgg maa ngay dem nag naa la fekkaat fi ngay ñëw. nga commandé léegi mu ñëw léegi. xale yi neexut ci asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñu ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar tey lundi 10 août 2020 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay comme ni ngeen ko amee chaque jour moo ko seq ak Boucar Ndour kër maama borom Jok Jilaas borom Mbeelo Ngij borom kër Alpha borom kër Mayoro borom Gambia Père Edi John Babacar Sarr Mbirkelane FM doomu ndeyu Abdou Darame ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu tamit DJ Mo ak waa Gambie yëpp maa lay nuyu di la ziar bu Kor Ndour. boole ci Mbele Kajaw ma ma dem ba foofu di nuyu Cheikh Ndiaye borom Mbele Kajaw saltige bu mag bi sama frère di nuyu ki nga xamante ni Lamine moo di Laay Faye président fan club Mbayang Loum kooku la ak Faly Mbodj di nuyu waa Mbele Kajaw yëpp Lamine waa Sine maa ngi lay bëgg di la di baalu ak Sénégal yëpp di leen baal ak Lamine di ñaan ko ay yu bëree bëree bëri Lamine. amiin waaye ñu ngi baalu di ñaan yàlla ñu yàgg koo féete ay at yu bare bare bare bare bare yàlla jële fi coronavirus bi jële fi njàqare yi ak tiis yi ci barke alxuraan ñu ñëw ci journal sunu làmb ak journal bi nga xamante ni moom mooy dañ koy commencé ci record bi nga xamante ni moom dafa ñëw def bilan saison bi nga xamante moom la ñu génn mu nekk saison boo xamante ni doy na waar trop trop trop trop ndax journée yi bëri ndax boo xool le 15 mars dañu arrêté li nga xamante ni moom mooy saison bi waaye comme ni ko olof di waxee rek jàmbe ak pexeem yàlla ak dogalam waaye nag dañuy xool écurie bu Lansar yàgg naa jël première waaye jëlati na première waaye boo xool ndaare Rock Énergie ñoo ko jël

moo jël premier ci saison bi Lamine. moo jël première ci saison bi c'est pas la première fois muy jël première ci saison yi nga xamante jot na fi am waaye nag loolu koy waral mooy am ay xale yu bëri yoo xamante dañuy bëri parce que gars moom dépendre luñ ci mbër bu mag boo xamante bëri nag parce que boo xool rock énergie bi nga xamante moom lañ def ndaare bu Modou Lo bëri woon daan équipe bi yëpp bëre daanu du tax ñu ñoom ñooy première mais. moo combat yi bañ a sore ñuy bëre di daan bu ko defee rek bu defee bilan sa écrit mën naa waaw Lamine loolu moom ni nga ko waxee rek maanaam c'est le travail de toute ton équipe Lamine manager yi am nañ ci part de responsabilité waaye dirigeant am manager général waaye da gis écrit boo xamante ni Lamine pour ñu am manager bu écrit bi sax day day jafe ay manager yi manager dañuy éparpillé wu nekk un peu partout waaye daal dirigeant yi ñoo mu bañ a soriantoo yaakaar na ne loolu noonu mooy tax tey écrit mën a dem si kanam mooy tax écrit mën a avancé mooy a dem bañ naan moo jël premier moo jël premier boo xool cinq première yi sax écrit mag yi nga xamante ne moom la tàmm di dégg ay ay ku ay école de lutte Balla Gaye ay Fass ay Rock Énergie kenn bokk si boo xool premier les premiers cinq les cinq premières noonu la ñu koy waxee les cinq premières Lansar la Kaay Baax Jàmm Gën si Kàmbaaw Yoof Mbooloo Rëbës yooyu ay écuries yu ndaw loolu yëpp Lamine ay écuries yu ndaw la ay écuries yoo nga xamante ne Lamine ba ngay dégg lam ba tey fii lañ nekkoon ay écurie école de lutte ay Fass ay Pikine Lamine waaye yaakaar naa ne ni ko waxee rek liggéey la laaj Lamine ak jom fu la fayda yaakaar naa ne booy yi moom ku leen gis wala xaaj bi yëpp ku si nekk Lamine am na jom am na fula am na loo bëgg si sa bopp yaakaar naa ne coup pouce rek moo leen dese maanaam ndimbal ak jàppale rek ñu mën a yegg fi bëgg a yegg. Yoff bi jëloon première tamit daaw dafa mel ni ren moom dafa mel ni ma nga ca sixième place ba xaw ma septième ba écurie Yoff daaw ñoo nekkoon première ba sunu làmb door bi ñoom ñoo ko jëloon. waaw Lamine daaw ñoo nekkoon première Lamine waaye gis nga ko ren ni demee Lamine affaire yi xaw nañu xaw naa lii si ñoom régressé nañ waaye daal dara nañ dañu yokkaat liggéey bi rek yokku ci rek dolli ñeex parce que tamit am na seen mbër yoo xamante ni bëriwuñu am nañ mbër yu bëriwuñ daaw nag te ren bëriwuñu loolu yëpp bokk na si li handicapé écurie yu bëri Lamine waaye daal ñu ngi ñaan yàlla rek saison bi teel a ubbi Lamine gars yi mën a reprendre seen activité. Falaye Balde Boy Niang bul faale pas classé. pas classé mooy que ne bokkuñu sax si di si si trente premières yi Lamine yaakaar naa ne loolu tamit bokk na nekk yi moom xaw na na des xaw koy waral wala mbër yu mag yi di di di absenté wala di beru bokk na si li rey tamit Lamine yaakaar naa ne loolu tamit gars yi a bàyyi xel bu baax a baax. rendez-vous bi waroon a dox ci diggante waa TFM wala waa GFM ak guy géeg rek rek dafa mel ni dañ ko reprogrammé waaw dafa mel ni dañ ko reprogrammé Lamine dafa mel ni nag bi mooy ñaareel yoon boo xamante ni tey Lamine guy gi mu ngi leen di faussé rendez-vous ni ko journal bi bindee rek yaakaar na ne nag ñu ngi am yaakaar ni troisième fois bi moom ça sera la bonne guy gi dina ñëw wala nas ñëw Lamine récupérer xaalis bi combat bi mën a taxaw. combat bi a taxaw combat yi moom bu lutte simple la woon moom tamit def na bilan ci saison boobu bilan général bi lutte sans frappe deux mille dix neuf deux mille vingt mu mel def nañ journée. journée loolu la grand Abou bind Lamine si si si si nga xamante ni rek Lamine moo di bilan def na si si si Fatick journée Fatick yi Kaolack Dakar. Thiès Lamine def na tamit si si mbër yi ba def na bilan parce que rëg-rëg yaakaar naa ne dafa def année blanche leen waaye ordinateur moom la bind ne moom mooy mbër bi ëppale trophée ak treize trophée yoo xamante ni jël na ko ak quatre finales yu ñàkk kon si xalima suñu grand Abou Ndour def na bilan boo xamante ordinateur moom lañ jàppakum ne mooy mbër bi ëppaleegum trophée kon finalu na daal 17 fois waaw finalu na 17 fois moom ordinateur si si ni mu ko bindee sax si précision bi sax daana si Serigne Ndiaye dër dans so si si si 48 heures daan ko Foundiougne daan ko ñaaxar hmm. mu nekk ay exploit yu def moom ordinateur macha allah wala boog noonu démb xaritu tey comme ni ko olof Njaay di waxee noonu du noonu sax mais noonu la ko olof di waxee rek noonu démb xaritu tey ñaar ñi nga xamante ni doon nañ bëri démb mu nekkoon combat derby tey ñu nekk ay xarit tey journal bi am ñoo xamante ne tànn na leen ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xamante ne mooy Baboy seen combat ba metti woon na trop tàngoon jër jër jër la waroon loon mu taxaw sax mooy Balla Gaye bi mu daanee ki nga xamante ne mooy Modou Lo am na nu mu doon nu Baboy andee woon Modou Lo coow am seen diggante ba combat ba taxaw Demba Diop yaara yaakaar naa jour combat Tonnerre Yékini Junior bokk na ci wala bokk côté yooyu la daal la Gaston taxawaloon combat boobu boobu Youssou Ndour mu ngi ci kaw tribune bi combat ba métti lool lool face à face métti combat ba jeex ñoom ñaar nag ñu mel ni ñu bokk ndey ak baay moo tax journal bi ñu wax ñoom ñaar moom comme ay frères de sang waaw Lamine comme ay frère de sang Lamine ginnaaw ay jàmm ñoom ñaar derby la woon Lamine ñu bëri woon bu métti boo xamante ni maanaam coow moo taxoon combat boobu nun taxaw waaye dafa mel ni bi mu paree rek Lamine coow loolu yëpp neen maanaam nee mes jàmm juddu seen diggante ab xarit juddu Lamine ab demlante ab dikkalante juddu yaakaar naa ne moo tax journal bi def jàngat boobu noonu def jàngat boobu def ko tamit ci Eumeu Sène ak ki nga bëri nañ ñaari yoon kii daan sa morom kii daan ku nekk def daan sa morom benn yoon waaye nag dafa mel ni ay xarit lañ ba bokk fi ñu dëkk. léegi Lamine ay dëkkandoo lañ Lamine ay dëkkandoo lañ yaakaar naa ne nag dëkkandoo nee nañ sax euh, ab ab la rek boo xamante ni ab mbokk gu juddu si diggante bi bëri nañ yoon kii daan sa morom kii daan sa morom combat bi mujj Lamine très tour mu nekk combat bu métti boo xamante ni tey ko fàtte waaye maanaam kóllëre na si diggante bi ba ñoom ñaar ñoo bokk fi ñu dëkk Lamine seeni soxla ak seeni seeni doom Lamine di di demlante di dikkalante loolu daal wane que ne sport moom maanaam day boole waaye du xaajale. ñaar ñi moom Claf moo leen boole mu nekkoon na war mu amoon ci deux mille deux mille sept deux mille huit bi Gaston ko muy Papa ak ki moom mooy Modou moo tax journal bi tamit wan nañu leen ñoom ñaar ña def ay exercice lii nag open press Modou la bi mu waaj a ak Eumeu Sène ñoom tamit dafa mel ni ay ami lañu. pour la vie. ay amee nañ pour la vie Lamine ñu bëre woon combat derby combat choc nekkoon ay xale ay naataango combat bu métti waaye gis nga Lamine ab xaritoo juddu si xaritoo nag bu juróon sax coow waaye teewul daal xaritoo la Lamine bu foog naa ne bu dëggoo moom ak lu ñu ñu mën a wax rek doo xarit gi moo koy moo koy moo koy ëpp doole wala xaritoo bi ngeen di dund ba tax na daal Papa Sow ki nga xamante moo di Modou moom journal bi dafa jàpp ne ñoom ñaar ay xarit lañ ba àdduna di tukki ba àdduna di tukki journal bi tamit séq na ak waxtaan ak ki nga xamante ne moom moo di rëg-rëg ci lu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo ci xale bu Abdoulaye Diagne bu Kaolack waaye nag wax na lu bëree bare nee na instant bi moom amul lu mu waxagul ci digganteem ak Lac de Guiers pour le moment dafa mel ni mu a soxla mooy digganteem ak guy gi waaw Lamine ginnaaw bi mu demee Kaolack rek yaakaar naa ne Leyti Sène la àndaloon demoon foofu noonu ngir jaale ji fi nga xamante ni tey moo di moo di moo di Cheikh Ibrahima Niass Omar Kane foog naa ne demoon na fa àndoon na ak ay ak ay ak ay ak stafam ni mu ko mën a waxee rek ak ay nitam waaye ki nga xamante ni tey moo di père Abdoulaye Diagne ni ko mën a waxee rek jeex sekk na ak waxtaan wax na si si si si de Guiers 2 jàpp nañ Lac moom grand la bu mu respecté boo xamante ni moom amagul lu muy waxagu ma moom parce que comme combat mag guy gi la jàpp na ne mag la jàpp na ne sax nijaay la jàpp na ne buy wax si moom moom du doyal jàpp na daal ñoom ñaar am na daal ay relation yu ñu seex Lamine. am na ay relation yu ñu seex ñi tamit def nañ bilan écrit xam sa cosaan huit combats cinq défaites trois victoires. waaw xam sa cosaan Lamine yaakaar naa ne moo tax journal bi def jàngat boobu si ñoom rek mu nekk équipe bi nga xamante yaakaar naa ne ñoom Jordan Soko Ondolofou Lamine Jet li ñoom ñëpp fa nekk mu nekk équipe boo xamante ne Lamine am nit ñi am nañ si a deltu ginnaaw ne moom mooy Jordan Ondolofou ren bëriwul Jet li bëri na daanu Soko tamit kombaam ci veyu combat bi la kombaam yaakaar naa yàqu ak lu mën a xew daal def nañ bilan boobu dafa mel ni nag moo mi nga xamante ne moom mooy seen entraîneur moom jàpp na ne bilan boobu moom dafa négatif. waaw moo jàpp na ne bilan bi dafa négatif bilan boobu moom Lamine baaxul benn yoon yoon yoon waaye nag ñu ngi aman yaakaar parce que jamono ji moom Jordan mu ngi ci liggéey bëgg na combat Ondolo Fou tamit noonu Lamine Jet Li gars yëpp foog naa ne ku si nekk jamono ji Lamine am na lu lay xaar am nga li nga bëgg soq moom ni nga ko waxee rek combat am dafa yàquwoon waaye am nañ yaakaar ne saison bi di ñëw gars yi dinañ dinañ dinañ ko taxawalaat mu mën a bëri mook Gamou Gueye ñu ngi leen di encouragé daal Lamine mborum Ndongo Cissé xoyantaan roi des arènes fële ca Gambie moom tamit pare na pour leeral digganteem ak ki nga xamante ne mooy Baye Mandione waaw pare na pour leeral digganteem ak Baye Mandione moom xoyantaan Lamine yaakaar naa nag moom dafa mel ni comme coow li dafa bëri wax ji bëri moo tax mu bëgg rek combat bi leer ngir ñu biisaat ko wala jamaïcain tegaat ko wala keneen tegaat ko Lamine ñu mën a jaam mu mën a jaamaarloog Baye Mandione won ko boppam won ko war ko diisaayu loxoom ak lu mën a xew daal kon Jamaïcain combat baa ngi noonu wala promoteur u Gambie yi ñu ngi nuyu ñuy suivre luttetv.com yëpp fooy mën a nekk si àdduna bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar Abdou bu xarañ loo Cheikh Bass Kër Massar Mame Balla Gaye donc di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy Pape Demba waaye nag du ma fàtte ki nga xamante ne moom mooy mu Ndoore ak ki nga xamante ne mooy Thomas Cheikh Diouf waa top 5 musculation maa ngi nuyu bu baax a baax soo bëggee am doole bu ko nduur demal foofu comme congé bi jeexagul moom incha allahu rabi damay dem rek continuer foofu dama dese yokku cere doole ñëw. boo ñëwee ma ma jox la ci protéine yu baax yi léegi nga développé Lamine waaye tamit di profité rek Lamine di jàll Papa Yade parce que génn bu àdduna am daf ñu fekk dëkk ba. mu mm-hmm. nekkoon vraiment ne talal nañ ko micro ay yoon yoon yoon di ñaan yàlla rek si seen di ko jaale mbokkam di ko jaal famim di ko jaal mbaru tëngëj yëpp di ñaan yàlla rek euh, yàlla na sarax yàgg seen loxo Lamine waaye ñu ngi bëgg ñëpp rek layti seen Mame seen Madou sama gaay yëpp képp kuy bëggali TV Lamine waa dëkk ba nag nam naa ko lool lool loolu parce que dëkk ba dafa neex dafa am jàmm Lamine neex na am na jàmm rendez suba incha allahu rabbi waaw wuli wuli looy def nii ah. dem naa jëndi kàggee yeeg tëj. xay ba ngeen dem nañ kenn kàggee di tëj nga xam man di ma yuux. xay ba di ma tëj lu la bëgg yow wuli wuli. waaye ma ne per yeekam. di nga tey waaye wuli da nga tey la moo xew. pop pop pop ka ka ka kada yi jeex na peinture bi jeex na lii jeex na dara amul tëdd yi nelaw. wuli xaaral xanaa xamoo siwo bati. siwo siwo bati. siwo bati moom mooy ñan. am nga internet. bu baax ci laay dox waaw ngeen dugg siopati point com ñu commande. lépp loo soxla. ci wàllum tabax. même ci fer sax dañ la koy jaay. Ah. peinture dañ la koy jaay. jeex na dina jaay carreau chaise anglaise lépp lu jëm ci toilette ak cuisine plomberie ñoom dañ la koy jaay. Mm, kenn du ñoom seen numéro téléphone père. 78 457 96 92. waaw soo bëri mais loolu jarul xuloo yow tamit nag. looy joxe sa xaalis. ay lay ay lay damay nelaw. kéenkaari tëj na jeex na. naan leen nag nelaw amatul ak soobati nelaw dootu fi am xam nga nag sant santal soobati bu baax a baax bu doon nag soobati nag bati naa la bu yàgg maa ngay dem nag naa la a fi ngay ñëw. nga commandé léegi mu ñëw léegi. li neexu ci suuf.